am na loo xamante ni xëy na gàllankoor la walu leen tënk ba tax yëf yi xaw a tege témbe wala fa tabarakallahu macha allah na ngeen ko yaakaare woon mu ngi si mu ngi demee noonu nit ñi nañ si tàbbal seen loxo yàlla lañ amal affaire te yàlla ko am moom affaire sa mbir dana baax fii sa mbir dana baax fale Moulay Abdul Aziz ginnaaw bi ñu la nuyoo yow itam. Mm. ziar la jox la sa wàccuwaay ndax ëmb nga ñu uuf ñu teg ñu ci li nga xamante ni itam moom moo di yoon wi si liggéey bi ñuy def. léegi léegi tontu bi. dama ko mm. bëggoon accompagner. Mm-hmm. ak ak ak ak ak benn image benn reportage bu ndaw rek. Euh, laata euh, Baye Abdou ngay tontu euh, Oustaz Assane ci gëstu boo xamee ni def nañu ko ak sunu confrère yu Ovision TV. foofu moom télé taalibe Cheikh laa ko tuddee télé Seydi Hadji ak suma euh, suma suma suma xarit Ndiaga Fall euh, ñoom euh, wane nañu ab gëstu boo xam ni mu ngi jëm ci liggéey bi diggante septembre deux mille vingt deux ba avril deux mille vingt trois c'est pour am jox Assane aperçu laata Baye abdu ngay tontu ci question bi ñu xool reportage bi. Hadji Malick Sy radiyallahu jumaa ji nga xam ne suñu maam. sëriñ Abdoul Aziz si baax moo ko rëddoon ñu mu tedd eh, yéwénal ñu ko nag ba ñun ñu mën a fekkee liggéey bi parce que yéen a yeggali ci fàttali jumaa ji terrain bi 27000 mètres carrés la faggu woon moo fi nekk nii bi ñu tàmbalee liggéey bi ñu defar projet boo xam ne ci 27000 mètres carrés yi 12000 eh, mètres carrés lañ ciy tabax.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 Euh, voilà donc évolution liggéey bi euh, diggante septembre 2022 ba avril euh, 2023 Baye Abdou pour question wu euh, Oustaz Assane bi. lii Oustaz Assane laaj léegi Abdou Aziz Gueye tontu na ci. ma jàpp rek wax leen tuuti ci kii di wax nii. wuy juróom élagement Hadj Mansour moo njëkk def ci sëñ Abdou Aziz Malick Dabax bi mu wootee jumaa ji. Mhm. wuy juróom moo nekkoon architecte bi. Mhm. moom mu ko daan yóbbu bu daan jàngi. di ko yóbbaale dimanche bu jot mu ko fa yóbbu tey mu jàng ba nekk ingénieur architecte mm. moo tax mu mu mu tey ji mu ñëw macha allah euh, bu dee ci liggéey bi gros œuvre yi yëpp jeex na ah. yëpp jeex na ñi ngi nekk ci finition yi fi nu toll nii conteneur yi def yi nga xam ne mooy seddal bërëb bi mm. ña ngi ko fay wàcce ñi nga xam ñooy def installation ci affaire courant bi ña ko ña nga ci ñi nekk ci sonorisation ci tabax finition moo gën a metti ci tabax finition moo gën a metti ah. parce que li des ci finition bi yëpp. Mhm. mooy war ngaa jàpp ni lu ci nekk décoration lay doon te décoration juma du du yor sa bant di penti loxo moo koy def. mais man euh, li ma gis ci image yi daf ma jox daf ma jox jumaay Médine. moom la. Ah. moom lañ la indil. ok di nga boo duggee ci biir vingt deux mille places bokkul ak ji ci biti. na boo fa teggee sa tànk day mel ni yaa ngi Médine. foofu nga nekk. Ah. bala nga xam ne yaa ngi Médine na nga génn jumaa ji ba taxaw ci biti mu naaj ba nu indi parasol yi. parasol yi nga gisoon ca Médinatul Munawara mooy nekk ci jumaa ji. allahu akbar. boo demee ba xam nag ba bëgg a gëstu ndax noonu lu nuróol. waaw da ngay dem fa bu dul suturlukaay ya nekk. ascenseur lay wàcc ba ci suuf. boo ci bëggee dem ñu jigéen ñi mën nañ cee dugg ba génn duñu gis ku góor. la jàkk jigéen ñi foo jigéen ñi jaar ji dugg ci jàkk ji ci jumaa ji mën nañ faa jaar ñoom ba génn ba dem te duñu tase kenn ku góor mën nanoo julli ci seen di gis di gis ki nga xam ni mooy imam bi te duñu gis ñi toog kon jooju jumaa ju toll noonu bu dee nodd foo toll nu bëgg nin foofu la nodd gi toll foofu lañ ko yóbbu ñeenti sooroor a fa nekk sooroor bu nekk dafa am lu mu àndal béréb ba mu fa nekk nag fa imam bay nekk danoo prévoir salle boo xam ni képp koo xam danga dem mar day taali ba am malaise am na docteur bu fa nekk ak ay mbiram yu fa nekk ñu duggal la fa xalifa bi bu dee ñëw ànd ak i ganam am na salon d'honneur bu nekk ca kaw boo xam ne bala ñuy ñëw man nañ leen faa teg ñu nekk li teen lu ci nekk nag système de ventilation bi fépp foo toog la nga méngool ci sa ci sa yaram ci loo ko seddal moo fay am amul lenn loo ciy gis lu tax nga naan lii kat fii la jóge wala nii leen ko defee. am na fa benn centre boo xam ni mën nañ ko tuddee riche. ci biir jumaa ji ci biir jumaa ji. sàll boo xam dañ ko fa def. heure kuy dugg ci jumaa ji ku mën a doon dinañ xam kan la ak ban heure la fi dugg. Ah. bunt yi du doo ñëw bunti jumaa rek ubbi yor sab caabi lokkat mu dem. dafa am nu ñuy ubbee bunt yi am ñuy tëje bunt yi. ndax ci biir dégg naa dafa am fenn fu mel ni régie fu ñuy superviser. superviser ba pare caméra de surveillance caméra de surveillance. lépp a fay am. ni Pape Samba nekk fii ci ci ci ci ci régie bi. noonu la ñu amee nit koo xam ne nekk ci régie bi. que. jumaa ji nag dafa am lu mu boot. lu mu boot loo xam ni fokk pour mu àgg nit ñu julli ci fokk loolu ñu wàcce ko pour mu mën a pour ñu mën cee julli. Mhm. dafa am benn centrale solaire bu jumaa ji boot. parce que lu tul nii kenn mënu ko wutal courant boo xam dañ ko ciy def. dëgg la kon central solaire bi ci boppam dem nan ba teg ko ba maire ba attribué nan ba nu dem ba ci béréb ba ci commencé liggéey bi. Mhm. loolu am na solo foog ñu wax ko nit ñi. Mhm. te jumaa ji ndox ma cay jóge du jóge ci S jógewul ci ci SDE. Mhm. ci Sen'Eau. ñaari forage la nu bëtt mooy alimenté jumaa ji. 500 hmm? mètres cubes lay dégage ci en profondeur. kon nit ñi mën nañoo jàpp ni jumaa ju ndaw. beneen bi ci des jàpp na ni jumaa ji ñii nga gis ñu fay liggéey. bu paree noonu la ñuy employé ay nit ñoo xam ni fixe. Mhm. corps de métier bu nekk dañ lay booleek nit ku dëkk Tivaouane taalibe bu fa ne. Mhm. nga yóbbu ko formation pour mu taxawee liggéeyu jumaa ji. Mhm. saa su nekk. ñi nga xam ni ñooy def nettoyage bi aussi noonu la ñuy demee. ñi nga xam ne ñooy toppatoo li nga xam ne mooy cet gi ci biti noonu la ñuy demee. mu ne nii clôture mur bi ci clôture bi. ci lan ci buñ ci jubloo noonu lay defi jumaa ji def ñu ne nag bu ko defee fokk nit ñi dugal ci seen loxo pour jumaa ji mën a àgg ndax dañoo bëgg bu gàmmu gaa incha allah ah. bu nu burdee ba pare ànd ak sëñ Babacar Sy Mansour ah. sëñ Maodo si daa baax ànd ak moom mbooloo mi ànd ak moom mu xàddam yi ñëw ah. daay yi ñëw ñu jiital góor gi jëm jumaa ja mais mais loolu ci imagination rek ñu nodd sawaar ñu sol yu weex boobu spectacle waaw ci imagination rek spectacle la loolu di ko imaginer rek dafa xam lu mu doon dafa sedd dafa dafa sedd xol. loolu am na am na pap mhm. te loolu imaginer li ñëpp ànd. billaahi sunu pris yi ku ne takk. Ah. muy mandargay àjjana bu ëllëgee. ku ne takk na ku ne takk. Mhm. ñu ànd góor gi dem julli ji bu ñu ko bëggee def nag. fokk ñu jéem a jàpp ci lii tey indi ci ay pexe yoo xam ni mhm. dañuy fexe ba tey lii nga wax milliard bi ñu ëpp ko waaye daal lu gën na nekk milliard am ku ma yónnee léegi biir. ndax man naa koo wax. waxal waxal kay papa kay. waxal. kii ma yónni feuille bii nii léegi. Uh-huh. Mitterrand euh, Mitterrand la tudd. Mm-hmm. am naa sama rakk bu yónnee léegi 5000. baax na dara jar te xeeb. Mm-hmm. Jean-Claude Mitterrand 800000. 5000 50 millions la yónnee. 50 millions baax na. 50 millions 50 millions Jean-Claude Mitterrand. Ah. buñ ko dee def nag bu compagnie sucrière. Ah. fokk ñu gërëm ki nga xam mooy Jaaña Njaay mhm. parce que fa la nekk. Ah, moom nag magam Doudou Gueye dafa dafay dafay xaritu xalifa bi. te ñoom sax dañu bokk ci émission bi bokk ci yëf yi. ñoom dañu bokk ci émission bi. da ah, dañ cee bokk. suukar bu ñu fi bu ñu fi safalee rek ñoom ñoo ñu ko jox. waa waa compagnie dañu bokk ci quartier bi ñu ñu dem ci docteur gasama mi nga xam mooy xaritu maam Alpha. Ah. docteur moo ko indi. donc cinquante millions dugg na léegi yóbbu na soixante cinquante millions yi. cinquante millions. moom moom la yóbbu. Ah. kon cinquante millions duggagun. ah Soados. Ah, Soados Soados Sall. hôpital maam Abdou. yónnee na cinquante mille. baax na. Julde Anne. Mhm. président groupe Sonam. Mhm. dugal na dix millions. waaw ah, Julde ah, Jul Alaaji Julde. Ah, ñaaña Seck Julde. huissier de justice Julde ñaan. dugg na un million. Julde ñaan. Julde ñaan. bàyyi fi fi ñaan. waaw waaw kay. groupe groupe Sonam. Sonam assurance assurance. moo joxe dix millions. macha allah. Euh, ñaaña Seck. Mhm. huissier de justice. maître maam ñaaña. dugal na un million. yaayu Pape Souley. waaw. donateur anonyme boo xam daf ci Momar Ndiaye mi ngeen xam. taalibe euh, euh, sëñ Babacar Sy Mansour la jaar. dugal na un million cinq cent. léegi nii ci guddi gi macha allah. Ousmane Faye. Mhm. Ousmane fay nag taalibe sëñ Mansour borom daara yi dugal na ñaata. dafa fekk ñuy jaay foto sëñ Babacar. ni ku ko jënd dugal ko ci jumaa ji. Mhm. mu jëndee ko 3 millions. jar na ko dugal ko ci jumaa ji. jar na ko. El Hadj Maam Thierno Mbakke. bu Daaru naan moom laa wax léegi. Mhm. dugal na 750 mille mu jox sëñ Bay Abdou. baax na ki nga xam ne mooy Mudilaan Ndoy bu nekk Sacré-Cœur 3. joxe na chèque gu 100000. macha damaa bëgg kuy téléphoné léegi dugg ci. ñuy bind sa tur te ñuy joxe numéro téléphone yi. ndax dañoo bëgg képp ku ci joxe. bu ëllëgee bu tàddee ñu xawlaa woo mën ko cee dugal. ndax loo xam ne dafa jàmp. te ñu bëgg caa gàmmu incha allah. ñoom Pape Hann bokk ci Sape Saak ñun ñëpp. ñoom jigéen ñi dem ca jigéen ñi. ñoom Modou Fall ak Oustaz ma dalal leen. mais su boobaa àddina ñëppay ñëppay gàmmu si. maa leen di dalal ñëppay gàmmu si. waaw waaw ñëppay gàmmu si. ñëppay gàmmu si incha allah loolu lañ naan l'histoire retiendra bu boobaa de. waaw ah, ah. yàlla dañ ko fekkee te taw. ñu déglu si Malick waaw. ma leen. Euh,